moom may nu ndaje mi ndaje ko ma ndaje ko bokk yu baax nga xam ne diine ji rek mooy seen itte taal bi ak ak taal bi diine ji mooy seen itte mooy seen itte ak ta ak taal bi ñoom loolu rek mooy seen liggéey na na na na ji gën nasoo na mu gën a doxe na gën a maase eh, loolu mooy wàllu diine ji wàllu taalibe gi itam ala kulli xaalin eh, il faut nit ñi ñu gën a xam sëriñ bi gën a gën a xam aw te te def ca sunu kattan yëpp sunu yitte yëpp sunu xel yëpp sunu kattan yëpp ñu def ko ci jéem a xam xam mooy sëriñ bi jéem a xam lan moo di aw doxinam waaw te te te nekk ci nag nekkal ko ci. loolu mooy li moo li mooy mooy mooy li am solo mooy li ci mooy yitte ji kon nag euh, képp koo xam ne euh, euh, dëkk bu sell bii sëriñ bi sàkkul ko boppam digg mu boromam ba amee ko ni ko bëggee mu dox ba agsi fii kon képp koo xam ne da yàlla daa xeer ci ñëw fi na xam ne dëkk bi dëkkum digal la ah, te it bëgg nañ ñëpp maas ci benn doxin bi muy doxinu sëriñ bi ah, loolu bëgg nañ ñëpp koo xam ne yàlla xëy na ci nga jëm ci dëkk bi rawat na nga sax nga ne mën a jàngale diine ba di ko jàngale loolu lu mën a xew la ci jiitu mooy eh, nga nga nga jéem a xam kan moy sëriñ jéem a xam lan mooy doxin waaw boo ko defee bu fekkee ne am njàngale moo la fi andi loola nga xam mu wóor la ne faw jàngal jàng fii liñ fi jàngale daal mooy jàngalem sëriñ bi jàngalem sëriñ bi nag yóbbaale na lépp ndax moom achari moo fi nekk mazhabul maliki moo fi nekk tasawuf jund yi ma fi nekk boo boole yooyu yëpp delluwaat ci charia ak xaq bàyyiwul dara gannaaw waaw kon nag loolu moom waxuma la sax bàccu sëriñ bi ak digg ma boromam waaye saayir soosu rek dafa tënku dafa doy tënk tënku ci lépp ci soobu yoonu yàlla fas yéene ko jaamu na mu gën a na ko gën a le loolu kon ginnaaw noonu la demee nag maa ngi joxe ndigal loo xam ne euh, loo ci fas rek mooy ñëpp nu maase fas yéene sax euh, dakk ci liggéeyal sëriñ bi jaamu sunu borom na mu gën a na mu gën a rafet waaw liggéeyal ko ci euh, suñ lépp suñ lépp lu waax lu ñu see def rek nu fasal ko ci dafa dafa fas ci léegi fas yéene ko ci liggéeyal mooy li nga xam ne moom laay moom laa joxe ndigal kon na ñëpp ñi xam ne noo bokk noo noo noo jëm si nañ fii ci Tuubaa de bëgg bëgg fee bëgg fee ci diine dañu xam ne eh, ci ci loolu amul nenn fañ koy mën a jaare furul ci jéem xam sëriñ bi jéem a jéem a xam doxinam dafa eh, fas ci a nekk ko Cheikh Ndiaye nekk eh, ndax bàyyiwul dara gannaaw di di nu mu waroon a diine yëpp lu aju ci diine loolu mi ngi ci biir loolu lu aju ci taalibe eh, ca bu njëkk ca saxaabatu rasul ba léegi lépp mi ngi mi ngi mi ngi ci biir yoon kon nag yoon bi da wuti wutul fenn dara lépp sëñ fàggul nañu ah, na ci borom eh, am nañ ko am nañ ko nan ko nan jaamu yàlla ak liggéey rek moo fi nekk te yàlla tax kon nag ñépp xam ne ndigal li dox doxin wenn la rek la a doon waaw doxin bi rek wenn moo xam ci njàng mi la jëm moo xam ci doxinu jàkk bi na wenn a doon kon na ñë na ko na ko ñëpp xam lépp lu ci ku jógati bëgg bëgg bëgg bëgg lëggee surtout ci wàllu diine ala ko laaj na nga laaj yoon ba bañ wax la ko nga jaar ci yoon wa ñu digal la ko nga defee mooy digal xam ci njàngale mi nag moo xam ci jàkk yi moo xam ci yi waaw kon na ko ñëpp xamee noonu euh, te xam ne kat euh, loolu mënut a ñàkk dana nu jaaral lu ne nag kon loolu tegu loolu aw yoon euh, ñun ñëpp nu maas ci dana nu jaaral suñu suñ suñu bakkan waaw kon nag nguur gi nga xam ne moom dëgg la yàlla def ànd àndandoo nguur gi fi nekk loolu itam ala kulli haal ñii bokk yu baax yi dox nañ lépp te yëgal nañ leen ko te jubóo nañ ci ñoom kon nag lu ci bëgg manqué itam daanoo ànd nguur gi faj faj loolu na mu ko nañ ko war a faje waaw na ko ñëpp xam ne waaw lu ci bëgg a manqué rek danaa dana dana ànd ak dana ànd ak ñi yàlla dogal ñu nekkoon fi sëñ bi ba ba ba bi alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi am li mu bëgg bokk fi nekk loolu kon ndax nañ xam ne lépp luñ ci bëgg jaaxal nag daan naan nag ñooñu faj loolu ak nun ko mën a faje rek loolu ko ñëpp xam na gën a santaat bu baax suñu borom mi nu boole sëriñ bi sëriñ bu baax mi nga xam ne fàggul lépp biir bi tey ëllëg lépp lu ñuy jëriñ tey ëllëg ci biir ci rek fàggul nañu ko ñoo ngi leen di seeral googu cant pour suñu gën ko bokk ak yéen di leen sant di seen taxawaay ndax xam di sax dara manqué wu ci yéen bee diis rek yitte ji rëy waaye dara manqué def ngeen li ngeen leen war def lépp dara manqué wu kon nag li ñuy ñaan rek mooy suñu borom mi nga mooy def dine mooy def ak dine te telewul dara gën noo gàtt nag tawfiq sëñ Tuubaa nu gàtt nag tawfiq sëñ bi rek lépp dana yomb incha allah lépp dana marché lépp dana mel na du ko bëgg